ma yeggali li ngay junj dañ ne ni Macky Sall mo nek suñu ginnaw c'est totalement faux. Macky Sall nekul seen ginnaw yeen suñu ginnaw mais fofu dama lay dog xam nga lutax yeen ma dikkee xam ngeen ni dafa fekkee demb am lu mu fekkee tamit tay mën na ni tay fekkee na lu bari. ndax bo dee and ak Ablaye Wade. xam Ablaye Wade nek ak Ablaye Wade bo dee and ak Ablaye Wade xam nga politique. Mhm. loolu on en disconvient même pas. Mhm. nga daal di ñëwaat ñëw far ak Habib mhm. ngeen ñëw am ben force am ben doole. Ah, est-ce que deful une menace wala dara ñu valider ko candidature. xam nga sais pas, ay waxu kër rek ñoy wax. Ah, man waxuma dama lay wax rek. la la hmm? mi wax. Hmm. Hmm. politique xam président xam Habib Sy. xam dootu responsable ak dootu leader yo xam coalition 2019. ci 45 jours le président m'a dit que matal parrainage. 45 jours. 45 jours Nous avons plus de 400 000 parrains et poussières. fan ngeen voilà C'est une très bonne question. Mhm. parce que boo la coalition Madické 2019 di nga ci plus de 14 partis politiques 14 partis politiques yo xamante mën 14 candidats yo xamante dañu renoncé. Mhm. ñeu le président Madické Niang. Mhm. Té 14 partis politiques xana lo way noy noy noy kenn ci nek mën 65000. nga boole ko une vingtaine de mouvement de taille yoo xam ne ñi ko jiite xam nañu leen ci biir réew mi. ñëw ànd ak président Madické Niang. ñu suñu matalul parenage kan mooy matal. te candidat yooyu nga xamante ni ginnaaw Madické moom moo mujjee déclaré. ñoom ba ñu déclaré ma jox suñu exemple. mois de mai l'année dernière la ñu déclaré woon suñu candidature. bi ñu annoncé système parrainage ñu comprendre ko dañoo teel a jóg. Habib si jóg ak ay parrainage am ñu daw lu ëpp 4 mois di wut parrainage. ak yeneen 14 part yeneen 14 leaders. yoo xam ne ay chef de parti lañu ba ñu dawee loolu lépp ba pare ñu dajaloo ñoom ñëpp ne Madické Niang mi kilifa la goo xam ne nii tey day dalal xelu askan wépp ndax Madické Niang moomu tey suñu àndee ak moom ñu yaakaar nañu ne système bi fi nekk mën nañu koo changer kon ñooñ ñëpp bu ñu booloowee leneen li ñu bëgg ñu lu pare naa sax war nañ koo mën a am